salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bu ngeen gisee jataay bi ngeen xam ne ndigal jub si na ndigal loo xam ne mi ngi bàyyikoo ci a cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne mooy xalifatu xaadim rasul ci kaw suuf ñu ñaan suñu borom yàggal ko fi te may ko ak wér ak mbooleem njabootu sëriñ Touba waaye nag wàcc si ci sëriñ Abbas mi nga xam ne. moo fi nekkal maam Thierno Birahim wàcc nag ci kër Serigne Mouhamadou Awa Balla ci njiital Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moo di xalifatu ak Cheikh Mouhamadou Awa Balla ak mboolem njabootu Cheikh Mouhamadou Awa Balla gi yëpp ñi ngi toog fii nag ci maqaama ci néeg bi nga xam ne benn la ci néegi boroom daarul muxti yi ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Moustapha mu wax ne njabootuk Serigne Mouhamadou Awa Balla gi yëpp dafa bëgg ndigal loolu nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké moo ko joxe mu jëm ci liggéeyub université bi mu wax ne dafa bëgg a soññ mbooleem koo xam ne da bokk ci njabootug sëriñ Mouhamadou Awa Balla ak noo ci mën a bokkee loolu moo waral jataay bi ci biir loolu nag ñu ngi fi teew ci ki nga xam ne moom mooy jëwrinam di porte parole du sëriñ Xaadim Mbàkke docteur ànd ak ay rakkam yëpp waaye ànd ak mbooleem ñi nga xam ne ay xulafaaw lañ ci biir kër sëriñ Mouhamadou Awa Balla ku ci mel ne sëriñ Modou Kara mi ngi fi moom Cheikh Mamadou Basir ak sëriñ Ousmane teewal fi sëriñ Basiru moom sëriñ Fallou Assa Dieye ak Serigne Modou Awa Balla teewal fi njabootuk Serigne Cheikhouna gépp ak Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Mouhamadou Awa Balla ak Serigne Cheikh mi nga xam ne rakk la ci Serigne Khadim kon ñooñu ñoo fi teew ci jataay bi kon dañuy def rek euh, diglu ñi nga xam ne ñooy jëwrin yi nga xam ne ñoo fi teew bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa rahmatullahi maa ngi nuyu bokki jullit yëpp di nuyu bokki taalibe yi ci turu suñuy kilifa sëriñ Moustapha moom Cheikh Mamadou Awa Balla di it eh, jottali ndigal loo xam ne mu ngi jóge ci sëriñ Mountakha ñëw ci sëñ Abbas ñëw ci kër Cheikh Mamadou Awa Balla Mbacké muy liggéeyu université bi ñuy def ci Touba ndigal li dafa agsi fii ma di ci soññi taalibe yépp kenn ku ci nekk la nga man na ko def ak loo mënul sa suñu kenn waaye ku ci ne la nga man bu dee bu dee million wala mu ëpp ko na ko def ka man juróomi dërëm juróomi dërëm la mën na ko def ku ci ne daal la nga man def ko ndax nun lu nu am rek ci loolu lañ ko am maam la muy bokk bokk ak sëñ Tuubaa mu am ci moom rek mooy lam ko liggéey kon nag noo ngi soññi ñëpp ndax maa ngi fàttali ne lu nu am rek ci loolu lañ ko amee salaamaaleykum wa rahmatullah eh, yéen bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu eh, maa ngi tàmbalee nuyoo bi ci suñ kilifa yi ñu bokkal toog fii ci jataay bi muy sëriñ Xaadim Mbàkke eh, moom Cheikh mu Balla ak sëriñ Mahmoudan ak sëriñ Cheikh Awa Balla ak sëriñ Abdoul Aziz ak sëriñ Sidi ak sama kilifa gii ma fegal muy sëriñ Modou Kara Eh, ak sama rakk yi di ñoom sëriñ Modou sëñ Cheikhouna ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen nuyu nag ki turu sama kilifa eh, sëriñ Kosa Mbàkke ndax ba dafa yàlla dafa dafa dafa dogal mu génn waaye bu fi nekkoon moo jël kàddu di nuyu mm, mbokk yi di nuyu taalibe yi yëpp eh, di leen fas yéene jotal ndigal loo xam ne ni ko sëriñ ko Kara waxe ma nga bàyyi ko ci sëriñ Touba sëriñ Mountakha ñëw ci sëriñ Abbas Euh, wàcc ñëw ci kër sëñ Modou Awa Balla ci euh, njiitul sëñ Moussa sëñ Moussa Absa Jaxate mi nga xam ne sëriñ Xaadim mii fi toog mooy jëwriñam ak njabootu sëñ Modou Awa Balla gi fi teew gépp ah ndigal nag mooy daala ji nga xam ne moom ñuy liggéey ci tubaa ñu di ko wax université ku na xam ne ne dégg bu yàggul tegoon nañ xeer wi soñé bi nga xam ne moom la ci sëriñ Mountakha soñé it dégg nañ ko yàlla dogal na ndigal loolu di ñëw ba law ba ñëw ci sëriñ Abbas maanaam mu jotale ko njabootu Cheikh Ibrahima Fatick gépp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñoo ngi nuyu mbokki julli yëpp ak mbokki taalibe yëpp di jiital ci nuyoo bi suñu mbokk suñ kilifa yi fi nekk suñuy bàyyi ak suñuy mag di wax ci liggéey bi nga xam ne euh, sëriñ Mountakha taxawal na ko muy université Cheikh Ahmadou Bamba ñu am ci ndigalu sëriñ Abbas ak suñ sëriñ suñ wasila di Cheikh Moustapha Absa lu ci soññi mbokki taalibe yëpp di wax na ko ñëpp def ni seen liggéeyu bopp tey wax ni sëñ Modou Awa Balla jar na ko ndaxte kenn ku ne ci ñun defal na la loo xamante ni xuma la baatin bi sax waaye saahir ma rek kenn ku ne ci ñun defal na la loo xam ne heure boo xoolee gis ko boo làmbee daj ko kooku fekkut ba mu defal ko tamit na ko sa baay nga di ci teg sa bët kon nag ñun ñëpp nañ ko def suñu liggéey bopp góorgóorlu ci fexe ba ni ko sëñ bi bëggee ñoo amee ko ni ci ñun ñëpp dajee ci ngërëmul Seexul Xadim jërë ngeen jëf mboolem ko aju ci Sëriñ Fàllu ak noo ci ajo jëwriñ yi nga xam ne xamoon nga leen ci kër gi ñëpp na leen soññ bu ci kenn des ginnaaw kenn ku ci ne la nga mën na ko ci def la nga mënut ci nga ko jéem te xam ne lu lu ci waay def sa bopp nga ko defal nee na fu waay man di nekk ak foo man nekk te ci kër gi ak noo ci ajoo rek soññ na ci liggéey na nga ci def sa kéem kattan fexe bu ci des ginnaaw bul xeeb dara bul dara ndax sëriñ bi mën na lépp te ci waay defit sa bopp rek nga ko defal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñëpp ñu nuyu suñu kilifa yu baax yi teew fii am rek suñu xarim ak sëñ Cheikh ak sëñ Abdoul Aziz ak sëñ Seydi Mbacke ak sëriñ moodu Karam sëriñ Basirou Assulo ak sëriñ Modou Karam sëriñ Moustapha Xabsa ak ak mag mboolem ñi fi nekk ñëpp ñëpp bàyyi woon kenn ndigal li nag mooy sëñ moo sëñ moodu Karam Mbacke moom sëriñ Koso Gànnaar moom fi yabaloon pour ñu soññi taalibe si liggéey mu Mountakha Mbacke bi muy wax ci université bi am bi ñuy defar bi ñuy defar Touba di soññi mbokki taalibe yi yëpp yëpp bàyyiwuñu kenn nee na yéen taalibe daal bu leen kenn man si liggéey bi da su waaye man daal na ko si def xeebuñu dara loo waaye man rek na ko si def ndigal jëm na ñun ay taalibe lan bu ndigal jëmee moom jëfee rek moo ci war kon ndigal li nga xam ne ñoo bàyyi ko ci sëriñ Muntaxa sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul dugg ci sëriñ Abbas moom Cheikh Ibrahima Faty borom Daaru Muxti wàcc si Cheikh Moussa Absa mi nga xam si ne mooy xalifa Cheikh Mamadou Awa Balla ngir daara ji nga xam si mu ngi koy liggéey mu université bi nekk Touba mu soññee jub si kilifa yi yëkkati seen kàddu seen xaar mi bi nga xam si ne moo yor kàddoom di suñu jëriñ yëkkati kàddoom kon ñun moom fu waay mën a nekk murit ndigal jëfe rek sëñ Kara wax na ko léegi nee na sasiwun dara waaye nag wala waay jox lu waay joxe lu waay lu waay lamb daj rek te man ko ngi yàlla gim sëriñ bi na nga ko def na nga ko def ndax sëriñ bi moom ku ko lebal ku ko lebal ku ko lebal ku lebal ker mu fay la mu fay la guddi kon jërëjëf. bokk taalibe yi bokk jullit yi maa ngi leen di nuyoo nuyoo bu tedd bu bàyyi ko Cheikh Moustapha Al Karim xalifa sëriñ Modou Balla Mbacké ni ngeen déggee njabootam waxe ko di ay doomam ndigal loolu ci moom la bàyyi ko euh, jaar ci ñun ñoom it ñu jottali ko kenn ku nekk ka nga xam ne mooy moom mooy sa bunt ci kër sëriñ Modou Awa Balla euh, noonu ñu ko waxee itam sëñ moom sësul kenn euh, lu waaye man rek nga def ko te itam loolu lay tax nit dana def euh, sax lu nga xam ne fooguñoo ne dana ko def waaw fe euh, xeebuñu ñu dara yéemuñu dara waaw waaye nag ñu fàttali ko rek ne borom daaru moom moom ci moom mën nañu wax ne moo mënoon ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa sëñ Modou Awa Balla kenn mënu ko ci kër borom daaru waaw sëñ Moussa Baye fi ñu toll tembe yàlla na ko fi yàlla yàggal loolu damay ko wér moom ak ci sëti borom daaru yi moo tax ah euh, jëfam war naa nekk jëf ju nga xam ne ju ñuy yéem lay doon ci biir loolu nag euh, euh, niñ ko bëgg a dajalee mooy kenn ku nekk bu la neexee mën ngaa jokkoo ak sa sëriñ nga jox ko la nga xam ne moom ngay joxe su la neexee itam am na compte bu nga xam ne dañ ko ubbi ci CBAO bu Daaru Mooti sëriñ Abdou Samad moom suñ Modaw Ball ak suñu Cheikh moom suñu suñu Modaw Ball ak suñu Abdoul Hatum moom suñu saaf so ñoom ñoo yore compte boobu ñoo koy gérer numéro compte bi 351 la 905 44 501 21 loolu lañ ci jublu jàppandalu fu waay mën a nekk bu la neexee mën ngaa verser ci compte bi directement CBAO boo dem ci Sénégal bu dee ci biti réew da nga ci yokk 17 256 boo ko wersee ba noppi jor jokkoo ak sëb sëriñ ne ko versé naa nangam ci addiye ji su la neexee nag nga ŋàbb ko ba ci sa sëriñ nga jox ko ko waaye bëgg jàppandal moo tax euh, ñu ne ah, fu waay mën a nekk rek su la neexee mën ngaa versé directement ci compte bi jokkoo sa kilifa wax ko ko su la neexee nga dem ba ci kilifa nga wax ko nga jox ko la nga koy jox euh, yàlla nañu ci dugg ak bisimilah rahmaani génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin te sëriñ bi yàlla may ko ci lu nga xam ne nam ko daan defal rek moom Cheikh Moustapha ci liggéey yëpp mooy mu am ci ndam am ci li mu bëgg lépp euh, te yàlla bàyyi ko fi may ko wér bàyyi fi jaboot gi yëpp barke xaadimu rasul wasalaamullahi aleykum wa rahmatun minhu wa